Ah, ma ne ah Koukandé woote na nee na oto yi ñi nga xamante ne nii ñoo jóge caare yëmbal super yi embouteillage bi day bari pour ngeen teel a fajaru ah ngeen ah pour ngeen teel a fajaru Koukandé nee na ngeen teel a fajaru ah yoonu yëmbal wi day xat léegi ah ñi nga xam ne ñoo war a dëkk yëmbal di war a ñëw ah Sumbujun nan teel a jug waa Malika ak waa yëmbal nan teel a jug ah ngeen mën a ngeen mën a teel a egsi ah parce que embouteillage bi nekk yë ah, ah côté yëmbal ak Malika. ah da xalaat na ci veer na ci loolu ñi nga xam ne nag ñoo dëkkee côté caare yi ah jëm ay Pikine ñooñu ah xam naa ne ah ñooñu dinañ te a jug ñoom tamit yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm ah xam naa ne kenn ah, wala si jarul mi bëri parce que ah, boo xoolee ah, ah bu demee ba foofu mën nañoo jënd yére yàlla nu yàlla defal jàmm kenn ku ne rek na nga na nga xool lu oyof rek nga def ko sa walis te bañ mu tooy yàlla nu yàlla defal jàmm nee nde yàlla sonn am fi walis woo xamante ne boo ci daa boo ci defee yëre du tooy ma kenn daa denc fi walis abal ma bu nuy dem dama sama yére yi laay bañ mu tooy ci ndoxam géej mi ah dimbal leen ma ko yoru walis abal ma mana ne walis walis walis pour bu nuy dem voyage wi suñu voyage bi walis kenn denc ko ah ka ma sa gis neen de yàlla mm, son na yow ren moom bu sobee suñu borom sama xar mi parce que néew ma ceeb ma graisse maanaam chaque année nga yónni sa doom ji na ma waa sa doom ji ñëw ne sama papa nee na nga may ko gres gum lakke mënu ma ah sama xar mii ren duma ci maye gres gi laa mayewul laa demal nga jënd pot beurre ah boo jaa comme xar yooyu ngay jënd chaque année da nga jënd pot beurre boo lakke ren di nga delluwaat ca pot beurre yi lakk ka sa xar mi si ama da ngaa mënta dajale jënd xar mu am gres ah cam kama sa gis ah mayew ma ah. salaamaaleykum ma ne turandoo dafa mel ni dafa amatul valeur ci réew mi. nit ñi nañ fonk seen turandoo yi bu ñu konti waa bu bu ah, tabaski jub see ah kenn ku ne sa xal day dem sa turandoo mu jëndal la yére mais léegi ah doo gis kenn daal ku gàddu daal mbuba na sama turandoo laa koy jëndal waa ah, lii lan la waa réew mi tamit lii lan la waa ah, fàttaliku leen seen turandoo yi léegi turandoo daal ah defu na ko dara ah la man mosuma gis lu mel nii léegi daal bu ah da ngay am turandoo du la jëndal dara loolu lan la te mag ñi ah bu njëkkoon fonkoon nañ turandoo waa léegi turandoo lan la waa lii commencé gis neen yàlla fonk leen seen turandoo yi di leen jëndal yére waa baax na